Euh, maire Wara Sarr nag euh, Adja ñëpp xam nañ ni nag moo jiite woon fédération nationale euh, des femmes du PDS ñoom nag dañoo daal di amaloon ab rencontre daal di nommé nag kii di Fatou Sow soñ bu baal di di di di di kii waay s'il te plaît koy waxal rek Fatou Sow mi nga xamante ne nii moom moo ko wuutu léegi ca njiit la ca kaw te tàgguwuñu ko benn yoon looloo waral tax sax moom mu daal di mer mm-hmm. daal di génn parti bi jàpp ne nee na ab humiliation lañ ko def moom maire Woré Sarr te na xam la ne itam moo ko Ablaye Wade lu yàgg la euh, histoire famille la ndax papam ju ko jur moom moo jàppoon ci loxoom euh, boole kii di ab Ablaye Wade ne euh, ànd bi daal bëgg na mu nekk loo xamante ne lu sax la Euh, depuis nag gis nañ ne nee nañu am na ay signature yu bëri sax yoo xamante ne ni dañu wax ne Maître Abdoulaye Wade moom moo ko signé te euh, daanaka ay imitation la alaaji mii doon na ko fi wax di fi poser ay question di wax ne est-ce que signature yi sax signature yu Maître Abdoulaye la mais mel na ne tey jamono jox na ko dëgg ba looloo indi tey jafe-jafe yi euh, tax maire Waré Sarr daal di génn ci boobu boobule parti ñoom daal ña ngay doxal na mu leen neexee mu nekk lu doy doy waar Seydina Omar waaw. am na audio ah, kon nañ ko dem déglu ji topp boo xuma woon dara ñu déglu ko te ñëw. Eh, na amul acca waaw kon Omar waaw. Mhm. Mhm. waaw euh, li kenn yéenewu ko PDS kon yaa ngi may tooñ ak bële beeg yooyu. Mhm. ñu danoo màgg ak mu mosuñu fa bokk nag mais bi ñu dugg ci métier bi fekk PDS moo yor pouvoir bi tey jii day tax nga am ci ay relation xam ñu bari ci parti démocratique sénégalais. bu ma nee lay ku mel ne bool bool ñoom Jibril Sène rek euh, mujj ñu gisee ñëwoon nañ sax jàll si ma pour wala ne ay relation yu dëgër la léegi nag ku mel ne Woré Sarr pour man mérité wul sor bi parce que Woré Sarr maire Gounass man man dama xam PDS rek xam Woré Sarr maanaam taxawaay surtout au niveau de la banlieue jiite jigéen ñi te PDS dund fi benn jamono joo xam ne nekkoon PDS dafa jafe na mhm. mooy bi ñu ñàkkee pouvoir bi noonu ñu bari daw mais ñoom ñu wéy di des PDS waxuma la PDS mais ñu wéy di doon ay wadd wadd quoi maanaam ay Aïwara Sarr ñoom ay wadd lan tey jii bu demee ba bàyyi PDS rek bàyyiwuñ ko seen coobare parce que ñoom dama daan dégg Modou Diagne Fada mu doon wax wax bu bu bu reelu mun a doomu Abdoulaye Wade ma ne Abdoulaye day yàq doomam ba du xaj ci ginnaaw keneen mm-hmm. maanaam même bu bàyyi Abdoulaye Wade sax boo demee ci ginnaaw keneen doo fa mën a nekk kon tey jii ku mel na Aïwara Sarr malgré âge ak lu mën a xew bu dee nii tey jii war nañ ko mën a jëlee ci benn poste de responsabilité dana war a xool règlement parti bi lan la maye est-ce que règlement parti bi prévoir na lu mel noonu mën ko ko jëlee mais warul doon loo xam ne di koy yëgee ci mbedd mi wala mu koy yëgee feneen ak feneen bi xëy di gedd mm-hmm. loolu moom rafetlu ma ko te boo déggee démb Doudou Wade nga xam ne malaise am na ci PDS mm-hmm. malaise boo xam ne tey jii ñu bari Karim Wade lu mu koy jii parce que tey jii ñi ngi jiiñ Abdoulaye Wade à quatre-vingt-dix-huit ans la ay signature ak ay ceci ou cela Abdoulaye Wade dogalatul ci PDS. Mhm. parce que âge am mayatu ko ko aussi. kon tey ji lépp li am ci PDS loxoy Karim Wade du ci génn léegi bu ñu xëyee ñun la benn taf Tafsir Thioye yoratul kàddu PDS ñu ni la benn Waré Sarr génn na PDS di la tuddal diloo tuddal wala fi dañ ne kër bu dee nii dafa am lu fa dugg lu bees te gis ñu ko woon dañuy laaj gani la mhm. ñu ne part bi dañ ko tayle benn waay bu ñuy wax Saliou Dieng. Saliou Dieng moom képp ko jegewul ci PDS am na ñu ko wax doo am gëdd ci PDS wala doo ci gisat sa bopp bu dee loolu dafa am pour man parti warul doxee noonu te PDS daf ci am loo xam ne tey ji PDS ñoom ñooy le père de la démocratie Sénégal maanaam bu ñuy wax démocratie PDS moo ko indi Sénégal kon parti boobu tey jii ñu naan parti démocratique sénégalais parti boobu ñoo wëkk njëkk a war a gëm démocratie mais warul am pensée unique tey liñ doon may ko ko ko may Karim Wade. teg ci aussi Karim lu tax posiram xaw a metti mooy kenn gisu ko kenn dégg ko kon. mais est du ñoom ñoo ko teg seen bopp ba waral léegi représenté tuñu sax lu mat 5 pour cent ci Sénégal. non non PDS ko natt. ah mais élection yi baax rek. non non ko natt parce que danoo dem jàppale la coalition Diomaye. Diomaye ñu waxante dëgg nag jamono gi ñuy dem di jàppale coalition Diomaye coalition Diomaye soxla woon na ko aussi. te tey ji bu ñu waxee ci assemblée nationale ñu ne yeewi moo la ñu baalewul lu ci mënti teewul PDS nombre de députés yu ñu am assemblée képp ku bëgg dara assemblée di nga lëngoog ñoom. pour juboo ci ak ñoom dëgg nag euh, Omar seen poids dafa wàññeeku. non man man du mu wax poids ci. mbedd ma may wax le poids électoral. xam nga ji assemblée. Mm. tey ji lépp lu fo tey ji ñoom Macky ak Jomaay doon def. Mm. mais bu leen PDS jàppale day gaaw day yomb mais bu leen PDS wanee ginnaaw du yomb ci ñoom. Mm. kon parti la boo xam ne tey jii loo ko mën a mën a xas xas xas am na ci lu mu téye. léegi nag loolu mu téye loolu Macky soxla woon na ko keneen soxla woon na ko ñu ñëw jox ko la coalition Diomaye kon tey PDS boobu tey ji mën nga ko xase lu ne mais ba léegi tey ji ñi ngi fi léegi nag nekk googu ñu fi ne li naan kuy naaw tey donc durut fa nga jëm soriwul mm-hmm. naam parti mën nañ ko renouveler parce que PDS aussi bari na ay mag mm-hmm. te il faut ñu rajeunir parti bi mais aussi am na noo koy defee moo gën a rafet que ñi fi nekkoon démb doon ay ngonk sacrifier seen bopp ci parti bi dugg kaso pour parti bi. def lu ne pour parti bi nga bëgg leen remplacer ak ñeneen defin wu war naa gën a mën a rafet. Mhm. maanaam démocratie bi parti bi di wuyoo du di wuyoo da koy nuru. Mhm. lu waaye di wuyoo koy nuru. PDS mu ñu wax parti démocratique la ba pare di dox ay doxalin yoo xam ne aussi méngawul ak démocratie mhm. man daf ci am ñoo xam ne ci PDS dama leen a naw. dafa am benn jamono nekkoon PDS yombul woon. maanaam ñu leen Macky doon teg ci àddina ñoom ñu xëy continuer nekk PDS di ci dugg kaso am na ci ñoo xam ne seen alal di ci dem am na ci ñoo xam ne mënatuñ woon yëngu ci dara. mais après fan la ñu mujj. ñooñu tey bu na fi fi ñu mujj mooy ci coalition Diomaye. non avant Diomaye di ñëw quand même. non non c'est-à-dire que xam ànd ak waa man ni PDS doon ni PDS doon doxee ànduma ci. mais des ah, fois da ngay respecté mm. posture ñenn ñi posture ñenn ñi. PDS nag dama lay yëgal benn affaire bu leen mën nañ politique de. xam nañ benn moment la ñuy noppi mais xam nañ benn moment la ñuy yëngatu. d'accord mais tey jii PDS mun nañ wax ni bu doon ni ab bato. Hmm. danaan bato bu amul capitaine la. d'accord te bato bu amul capitaine. Hmm. daanu da koy yomb pour man li ñu war a lijjanti ci PDS. mooy hmm. Karim Wade dafay ñëw jiite PDS ñu xam ne moo ko jiite. wala mu dénku ko keneen. mais pour man fekk Karim mi ngi Qatar di jiite PDS. Mhm. PDS du jóge ci jafe-jafe. d'accord euh, son Ibou euh, moom expliqué na ko sax euh, suñu yaay jooju di ware saar nee na 4 février bii passé ci bi ñu doon waajal voté benn loi nee na jot na ci sa ay menaces de mort ba guddi googu fanaanul woon ci biir këram. mu tayle njabootam mm, jafe-jafe yi daal yi mu wax euh, ba tey ñu fayee ko lii jël ab euh, beneen nit boo xam ne yëgul tinu ñu jël ko jox ko place moo waral génn tey euh, ci PDS. waaw nga na nga taal sa micro. kii moom mooy reetaan la ndax yéen li ngeen xalaat mooy man crème bi ma indi ci plateau bi jaaduwul mais moom da cee bëggoon. moom moom waxul ni la waxul ni la eh, xam naa li ma la wax bëti xam naa wóor xam naa ko. wala da xam naa ko xam naa ko xam naa ko. des fois ma xam naa ko des fois sutura ma am yu ma yor am na nu ma koy defee <laughs> automatiquement da ciy bëgg xam naa ko wóor na yàlla da ciy bëgg. <laughs> saa daanaka li koy waxal dëgg la nag loolu ngeen màcc laa dul laa dul dox ba jëndu man du sama bëgg-bëgg. aywa <coughs> tey ma jigéen da nga loo xam ne xam nga dama gisoon ñu nii Abdoulaye Wade xaw ma kan ci ñoom ñoo ni dañu bëgg a libéral yi jiite ñaata. 50 ans 50 ñu jiite ko. mais xam nga loolu day jafe lool ak doxin wi nga xam ni moom la ñu gis PDS ak ñi ko jiite wala li ñuy tuumaal Abdoulaye Wade ni moom la wax di doxee. doon na mën a nekk nag su fekkoon ni dañoo jaaroon ci yoon wi nga xam ni exemple tey lii mu wax su nekkoon ni Ousmane Sonko moo jiitoon PDS wax ko doon na mën a nekk ndax cër bi nga xam ni moom la amee. war a développer Sénégal gisul ni moom moo ko war a yore. maanaam mi ngi mel rek xare bi yonent bi saa euh, doon dem ak ay saxaaba ni bu diw faatoo na diw jël bi bu diw faatoo na ko jox diw bu diw faatoo na ko jox diw ba mu àgg ci diw. maanaam drapeau bi mooy mbir mi li ma bëgg a foofu mooy exemple Sonko bi mu ñëwee dafa wax ni man projet laa am. ma jigéen mën na koo doxal béti mën na koo doxal ka saa njóogu mën na ko doxal keneen mën na ko doxal man aw ma importance ci yëf yi léegi nag loolu dafay dundal am mbir loolu moo tax gis nga yoon wi gaa yi jaar sax nag nee dina fi def cinquante ans dinañ fi def cinquante ans mais mën na ko ëpp maanaam yoon wi ñu jaar bu fekkee wàccuñu ko hmm. mën nañ fi def lu këpp parce que su boobaa nit ki yor pouvoir bi hmm. danaan man du man hmm. dafa am lu ñu war lu war a doxal gaal gi ma jigéen bu fekkee mën naa dawal mën na koo doxal mais nekkul ni man maa ko war a doxal léegi nag Abdoulaye at bi mu ñëwee moom li tax parti bi guddoon fan ci benn jamono parce que dafa yor pouvoir yor doole yor lépp yor décret di fal su boobaa lu mu wax ñu ni yarhamkallah mais bi mu demee nag ba perte pouvoir bi nangootul yëf yi jógee ci moom dem ci ñeneen ci parti bi ñoo xam ne moo leen defar ñu ay vedette euh, mën nañ ci lim Idrissa Seck mën nañ ci lim keneen saa mi ngi koy wax ci suba ku toog bañ jàpp ni war ngaa am dara ñu ni séedan bi ngay xool wala doomam ngay diir mbagg ñu dàq la gis nga Macky Sall ak ay wax yu mu doon wax ci doomam ñu dàq ko ñu xor ñooñal ko mu génn assemblée léegi yooyu nag bu baree day dem ba li nga yor day mel ne ndono lu gàtt lay doon saa suñu la gisatul rek loolu dafay raaf mais gis nga PDS fekkoon ni biñ demee ba xam ni Karim Wade mënatul ñëw dañoo defoon ni Ousmane ko defoon ni Pastef def kon pedes mën na am doole ci élection yi mën na nekk sax su jëlul pouvoir bi mën na jël deuxième. mais ni ñu dem ba jàpp ne Ablaye Wade la ñu toog fee benn waaye di bind ay jamono ñu koy jiiñ Mayoro suñ bindee ñu ne Mayoro mooy bind. kenn xamul kuy bind kenn xamul kuy signé ba élection yi bi ko jomaay seetee ñu ni non pas bi waxul ñeneen ñoo wax maanaam manipulation yi bëri léegi loolu su bëree nag day dem ba parti bi kenn mënatu koo takk aw say day nekk loo xam ni dafay nekk sendal gu tas ci jamono ji nag su fekkee ni maire war génn na en tout cas ñàkkati nañ kenn koo xam ni man bokkoon naa ko ci ñu gën a sérieux ci parti bi ndax man li may jàppee nit ku sérieux ci politique muy da ngay ànd ak nit mu daanu nga toog ci moom muy neex ka muy naqari jàpp ma ni sax lu naqari am na ci ndax ñoom ñëpp ku ci nekkit bi ngay toog toogaale nga dara wax dëgg yàlla député nga fa nga am na itamit loo toogaale parce que Abdoulaye Wade jàppale leen ubbiloon leen ay buntu yu ñu mën a bokk na ci ki nga xam ne man jàpp naa ne su fekkee ni détails yii nii moo tax mer am ba dem am nañ ko woowaat parce que bu dul meer ware mi war wàcc ci terrain bi yor pancarte wala muy campagne mais borom xam-xam la yàgg ci parti bi kon bu ñu seetaan ñoom waree di quitter parti bi ndax borom xam-xam la en tout cas laa amoon lu ma ci wax daal te jàpp ni bu fekkee mbir ay nit dañ koo bokk te bëgg mu avancer bu ñu nangu mu yem ci kenn nañ ko séddale Karim du PDS Ablaye Wade nee nañu dafa bari njaboot dafa njaboot. njabootam gi am na ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañ Abdoulaye Wade ëpp ay boromi xam-xam yu mu defar fii ci mm. gouvernement ngaa jàpp ci taabal seppi ni kii mën naa yorum réew mais tey nguuru Macky Sall rek lañ gis ni kenn lañ mënoon a seppi ni mën naa yorum réew même ku mujjee tànn te da koo tànn ba ci digg ba ñu ni jubóowuñ <laughs> voilà jërëjëf euh, Sohaibou euh, Ajaratu est-ce que jàppoo ne gars yi tamit li tax ñu jël Fatou Sow teg ko fa est-ce que euh, nekkul ni mu nekkee mag moo tax pourquoi pas moom mu dem mën a toog dem noppalu ko su ko defee eh, ñu topp ci moom mën a ñëw. ba jur mm. tey jii nii mu jàpp dañ koo humilier. ah dañ koo yóbbu ci magu PDS. waaw lañ ko jàppee peut-être dindi nañu mag mu am solo mag mu am njariñ biir PDS. mag moo xamante ni li mu sonn ci PDS. boo nee benn dooni ñaar xalewaale wuñ ko dañ ko fekkee. PDS jaraloon ko lu ne wàdd moom nañ ko teg fee sax parce que da ci discours am da nga doon dégg mu ne man ware Sarr je suis wàdd de sang. Mm-hmm. noonu la koy waxee mu leer la ni kii rek am na foo xamante ni nekk na fa gis nga gis nga affaire signature signature boobu muy wax ni dañoo imiter eh, eh, signature u maître Abdoulaye Wade man c'est la unième fois may dégg lu mel noonu ñaata yoon la fi ay communiqué génn ñu ne lii ah, waaw léegi ñaata yoon la fi ay communiqué génn ñu ne wadd signé wu ko yëgu ko laalu ko. mais man de man de dama ne Waré Sarr mënoon nañu peut-être alternance lañu wax ci biir parti yi ba tey d'accord mais ku mel ni Waré Sarr am na loo xamante ni boo koy def ci biir parti da nga koy woo nga waxtaan ak moom. mérité na loolu te am na place boobu biir biir biir PDS. Mm-hmm. xaw ma nag nu décision décision bi xaw ma. nun ko nun tànnee Fatou Sow mais Waré moom mënoon nañ ko jox cëram bi mu mérité mhm. lii mooy dëgg d'accord Alaaji doon nga fi wax mbirum signature yi fii di laaj ndax est-ce que Wade moo ko signé ba ñu lay wax loolu mënul nekk tey jii nii looloo dem ba indi euh, maire Waré mën a quitté ci parti bi ñenn ñi di def euh, seeni i ay assemblée générale te duñ ko yëgal euh, ban jàngat nga am ci mbir mi. waaw xam nga boo seetee. li nga xamante ni bii moo moo dal PDS eh, maire ñoom maire waree ji ñëpp eh, ñoom ñoo waroon a maanaam li leen dal ñoom am nañ ci part de responsabilité. ah ci naka. parce que parents yi nit booy nekkee ci politique da ngay xaw a am benn vision xool xam ni eh, gis nga nguur gi bi mu ñëwee. Mm. dafa am lu bari lu muy def ci parti politique yi. parti politique yëpp ñi ko yëg nag mën nañ ci jariñu euh, defar seen bopp ñoom comprendre nga pour bañ lu mel nii di leen dal ñi ko yëgut danañ mbëkk miir bi lu mel nii dal leen parce que gis nga jamono jiñ toll nii nit ñi dañu gëm ni parti politique yi dañ cee soxla comme ni nga xam ni ñu toogee woon rek parti politique yëpp nekk ay paa jiite nekk ci kawam ak yooyu paa yi nekk kii ñuy fol ki ak yooyu ñuy yoon nit ñi dañu gëm ni léegi loolu dafa fee war a jóge muy ndaw ñëw waaw parce que réew mi nag mënuñoo nekk ci réew moo xam ne ndaw ñooy fi ëpp ëpp fi lool mag ñi war a dem tuddi noppalu ñu jox leen poste yeeg kii parce que xam nga ni ñu tëggee yëf yi boo ko xoolee dañ ko bëgg a tëgg noo xam ni bu ñu ñëwee pareen saay mag dina ñëw ci bërëb mais mën na déranger parce que li tax muy déranger pareen mën na wax loo xam ne kenn du ci ànd ci réunion ba mais âge bi boo waxee mu ne la wala mu ne la mu freiné la. Mhm. ne la ba may politique politico man maa leen njëkk ci parti bi. yooyu ay mbir la yoo xam ne moom la ñuy teg béto yooyu bu ñu ko tegee léegi finalement dañuy déranger léegi nag bu ñu bëggee ñun waxtaan tranquillement parfois il faut que ñu mën a tolloo li nga xamante ni bii mooy gis-gis tolloo ay âge yooyu nga xam ne sooy mën naa wax ma joxar bi ko wax lii te loolu dafay am fépp ah. Mm-hmm. fi mu toll nii tey bu ma toogoon fii Walfadjri ko wax ma naan la waaw ba ma ba sii di di kii booba nekkoo fi. waaw kon ay noppi booba ñu ne la ñu dàq la réunion dootoo ñëw di réunion. <laughs> waaw que dañ naan kii. Euh, léegi moom. Eh, idée kii la nekk quoi maanaam kii yooyu la nekk ko quoi maanaam yooyu day déranger. si comprendre nga. Mhm. moo tax parensaay il faut ñu seggaat yëf yi. Mhm. léegi nag man dama wax ne ñoom waree moom malgré que liñ ko liñ def noonu sax pourtant xaw nañ ko jéem a kii sax dana ko xaw ma lan président d'honneur xaw ma lan. Mhm. yooyu c'est pour récompenser ko la. mais est-ce que euh, ñàkk a yëgal gi waaw waaw mais xam nga boobu peut être xam nga daan dañ naan affaire bi nuñ koy waxee kii nuñ ko koy waxee jéem leen ko koo wax ku nekk di wër-wërloo. Hmm? c'est que comprendre nga. Hmm. c'est que yow loolu bu ñëwee rek yow bul def nii ci mbedd mi mais accepter rek garaawut parce que sa carrière politique jeex na. te li sooy bu wax sànq ne maanaam moom bu déggee ñu wax maire waree. Hmm. fi mu koy teg loolu bu ko bul génn ci penc mi di ko yàq. comprendre nga parce que ñëpp nee nañ. jàmbaar la de jàmbaar googu moo tax ma ne la bul génn ci benn mi di ko yàq. parce que lii sorte bi mu def nii man pour man waru ko def. comment mën na am sax lu ko naqari. mais après ko ci suuf. comprendre nga parce que fi mu toll xam nga loole du fi jóge naan day transhumé di dem fe. te mm, waxul nag ci poste fu muy dem ah, comprendre nga maanaam xaj gum nañ mm, wax leen ne leen. Mm. man de mën ngeen maa kii ah, sax comprendre nga oh, oh. mënoon ngeen doxal waaye nii ngeen di defee bu leen ko defee bu waa booy sax ko poste député bi tamit waxu ci parce que bu dee quitté na parti bi te waaw boo quitté mais xam nga yooyu neexut mais bi na continuer sax nekk député mm-hmm. parce que député yi léegi mu jeex mais li am solo mooy mooy mooy yëf yi. yëf yi il faut que ñoom ñu xam ko. parti politique yi gis nga fi mu toll nii ñoo nga def ñoom Idrissa Seck nii nañ ko néeg mais parti bi léegi mu jox xale. xam nañu booy yaa ngi bàyyi booy dañ koy jël. yaa ngi dégg. gis naa ñoom Moustapha Niass ñi ngay jéem a yëngal. yëngal kii pour pour <laughs> nekk gane yi. lu ñuy yëngal ah Khalifa Sall mii. ci yoon woowu la jëm. waaw ñoom kañ bu ñu bañee parti parce que il faut que ñu xam ni mag ñooñu mhm. démb lañ ma ngi démb léegi nag mën nañ voilà waaye waa ji waaye na ko dafa ngi démb yaa ngi ay démb lañ c'est léegi rek il faut que nag fi mu toll ñoom pour ñu mën a compétir ñoom dañoo jàpp ni fi mu yi nii parti yi dañoo jàpp ni pour ñu mën a compétir il faut que ñu méngoog ñi nga xamante ni bi tey ñoo yor réew mi comprendre donc moo tax mais ki yore parti bi est-ce que pare na pour compétir. bu fekkee yaa ngi toog fële kay. non Karim mi ngi defar kañ pare na pour compétir loolu muy def noonu yëpp kii la. waaw mais bu kenn gis ko ñoom boobu ba ni ñu ngi koy muñ. bu tey rek ñu ne changé na la rek nga ne nga bëgg a dal ci Karim nag nag yawit nag yawit ah waaw waaw mais Karim daal en tout cas ñoom àndoon nañ ci Karim comme que Karim a ngi fële nekk Karim fantôme ñu naan day ñëw ak du ñëw comprendre ñu d'accord loolu. nañ continuer ci loolu Karima ngay jéem a defaraat parti bi di jéema a fexe parti bi méngoog parti jamono. ànd ak jamono. nañ xam ni daal loola te ñoom mag ñooñu. mag ñooñu bu ñu bàyyi. parce que mag ñooñu amuñu fuñ jëm ay mag lañ nañu toog ci parti ba bu doon bu fu mag nekk ñu faxas ko. Hmm. am na ñoo xam duñu toog fenn. kan fu mag nekk ñu faxas ko. ah waaw ah, ah, yaa ngi maa ngi nii yaa ngi nii nii nii. man maa moo tax gis nga ah, ak ñeneen. yaa ngi toog de saadu mag de. waxuma la saadu mag yooyu. mais loolu dañuy tooñ mais xam nga. xam nga problème bi mooy ware. ware dafa dafa dafa teel a ànd ak ab Wade. waaw tax xam nga mbir boo koy def saa da koy def ak la forme. dafa dafa am loo xamante ni rafetlu rek. comprendre comprendre dañ comprendre ne dañ magal leen génne géew bi. Hmm. may mag lañ. ñu ko sax waxuñu ko mais mais mais mais saa saa dama la benn a saar a jafe. Hmm. Oh, façon politique ah. bi na foo ngeen am na bi am trop technique. sa politique politique la rek. Ah. non non. politique politique la politique bii ñu nekk nii. Mm. Mm. politique trop technique xam nga ñoom. am na lu ci technique fii dëgg may déglu. waaye <laughs> politique opposition bii ñëw nii. waaw il faut mu nekk opposition bu technique. waaw demee ay idée comprendre nga bu ngeen toogee ci plateau yi ne ci ay chiffres di xool fa la yëf yi jëm de. Mm. maanaam xam nga yi mooy politique yow doo dara doo. tus doo kii Mm. jërëjëf <laughs> ayca mi ngi noonu. Adja retour <laughs> li la ñu indi woon tey ci euh, actualité bi jox leen diggante suba ak jàmm ak beneen actualité. incha allah bi merci beaucoup ma jigéen Diop Dieng Sall ñu ngi lay jaajëfal